on parle de centaines de morts au Sénégal il faut vraiment reconnaître. à nos FDS que vraiment c'est des éléments yoo xam ne euh, bien formés am maîtrise aussi souvent ci temps yu mel tension yu xam ne euh, euh, dafay dafay am. loolu mooy téye xel aujourd'hui parce que mm-hmm. a toujours et beaucoup de respect même pour nos forces de l'ordre au Sénégal te loolu luñ mës a njortu que ça on a une police et une armée républicaine on l'a mm-hmm. toujours dit mais tey jii li nekk di xew où yow euh, dañuy ñëw tire à bal réelles sur un citoyen c'est que ça pose problème parce que ils ont d'autres moyens pour neutraliser ou, ou faire disperser les gens mais bu ñu demee ba egg dans des trucs ou bien on convoque quelqu'un pour un procès mm -hmm. on vient maanu militaire on on croit qu'on peut dañ lay jàpp dañ lay génne dañ lay dañ gazé dañ lay am na loo xam ne ñu ngi koy dund Sénégal loolu amul fenn. xeebuma xeebuma démocratique amul bavure yi am néewaluma ko doole ñàkkaluma ko solo parce que warul am mais li ma bëgg wax mooy euh, lu ndaw la en fait ci li nga xam ne ñi ngi koy def ci erreur foofu laa bëgg a xam. maanaam xeebuma ko parce que warul am. warul am euh. mais bu ñu xoolee un peu la la la en général maanaam exception la mu arrivé voilà loolu laa bëgg a wax ça arrive exceptionnellement. euh, vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal on est dans une situation de non d'état état amatul sax parce que lii nii euh, xel sax mënu ko nangu xel mënu ko nangu parce que euh, man je ne peux pas comprendre que kenn amatul liberté bi xam nga ñëpp tout le monde est dans la peur aujourd'hui personne ne peut parler dans une république nga ne yow les gens plus la liberté d'expression am na yoo xamante c'est des fondamentaux dans une république. mais l'opposition ce n'est pas dans l'exagération. mais mais quelle mais la non non mais ce qui dit que su ma génnee sax duñu ma jàpp parce que euh, ñi doon wax. Euh, Cheikh Oumar Anne. Euh, kii Diagne. qu'est-ce qu'il a dit dafa doon exprimer ko. Karim qu'est-ce qu'il a dit dafa doon exprimer wu et ainsi de suite on mais dañu doon wax on est dans une république. et puis et puis ce qui est grave non mais mais est-ce que est-ce que li ñu doon wax jar na ko qu'est-ce qu'ils ont dit de spécial mais tey ji on est dans république kenn doon ko ci ay baayam. Mhm. fii nii ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal gi. man su ma gisee li jaaduwul war naa ko mën a dénoncer. mais cette nouvelle forme d'opposition aussi et c'est comme ça que fonctionne et que progresse démocratie. Ah, mais nga ne nit ñi amul ñu droit wax et puis ñeneen ñi am nañ droit wax man am nañ droit sa menacer am nañ droit ne on va brûler on va tuer on va tout faire kenn du leen arrêté kenn du leen wax dara. mais dès lors que yow da nga nekk fële waxoo sax. loo xamante ne xaw na graaw mm-hmm. ñu ne la dañ lay arrêté parce que on est on s'inscrit dans une d'intimidation et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas dans, dans une démocratie qu'on le fait. Ça, c'est un État dictatorial qui procède comme ça. les méthodes, et les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, ce ne sont pas des méthodes de la démocratie. parce que li ñuy jàngoon ci en école ci démocratie je crois que loolu la nekk di dund c' très loin de ce que nous sommes en de vivre. Ah, mais ñi fi nekk actuellement par rapport ak leur pratique yéen combattre ko moo leen tax a jóg l' opposition euh, Pastef et autres mais par rapport aussi aux pratiques de de d' certaine opposition euh, défier les forces de défense défier la justice génn manifester malgré interdiction ba am lu ci am ak appel yi ngay lancé aussi loolu tamit war na ne c'est un appel à insurrection mais telle situation se pose par exemple il y a eu un fonds Covid qui a été voté et les fonds par un rapport public parce que du obligé moo def rapport bi mm -hmm. des gens ont été épinglés ñu ne nañu marche dénoncer loolu pour que au moins que que l'on dise à la population ce qui s'est passé réellement lan moo ci nekk lu lu lu lu lu grave loo xam jar na nga ne damay interdire manifestation boobu est-ce que meeting bi ñuy autoriser chaque fois bu ñu autoriser un meeting est-ce que da nga gis mu am euh, ay bavure ou quoi que ce soit. non c'est pas tous les jours lañ ko a autoriser. Ah, alors quelquefois pour prendre en compte li nga xam ne mooy. réalité mais pourquoi mais parce que justement les gens ont peur et ils ne veulent pas que l'opinion internationale voit ce qui se l'on dénonce ils veulent pas que l'on dise la vérité à la population ou à l'opinion nationale et internationale mais mais mais mais mais mais mais dëkk bi. Euh, dañu war a waxante dëgg quand même. Mm-hmm. si on veut progresser on veut évoluer on fait évoluer même nos institutions nous avons besoin de discuter. Ah, mais le parti que que que que vous soutenez euh, le parti bi nga xam ne ci nga nekk euh, boo seetloo depuis ces dernières années c'est le seul parti la seule formation politique boo xam ne ay nit ñàkk nañ seen bakkan ci appel boo xam ne lancé nañ ko. yaa yaa yaa la réew mi qui était dans l'opposition dara mosul xew yaa les xalifis jàpp nañ leen dara xewul karimis yi jàpp nañ leen dara xewul. mais avec Ousmane Sonko à chaque fois que c'est qui est en cause day am problème mars 2021 bi pas mooy bi mujj aussi li ma bëgg wax mooy lépp départ bi ci moom moom lay jógee aussi d'accord mais maintenant est-ce que fii 2011 mhm. ne on va aller déloger le président est-ce que ça a eu des conséquences non non voilà mais pourquoi parce que quel y avait quelqu'un qui était démocrate pourquoi tey jii quelqu'un n'a même pas di ça on n'a même pas demandé à déloger Macky Est-ce qu'il n'a pas et dit il pire? tue. Est-ce qu'il n'a pas dit Lui, on dit moins, il tue. Alors qu'hier, il disait pire et on n'a pas tué. C'est cela la vérité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on est en face d'un gouvernement. Mm -hmm. On est en face d'un pouvoir et puis d'une minorité. Parce que c'est cela la vérité. Une minorité qui se préoccupe plus. de une mais évidemment ils sont minori ah mais mais attendez minorité def nañu élection législative ay locale gis nañu def nañu élection législative gis nañu législative yi pareil mais ñu demee législative on n'a pas vu. n'empêche ils sont encore majoritaires dans l'histoire politique depuis bi ñu jëlee ENEVA ba tey jii mosuñu gis cohabitation ah, alors alors donc une minorité ne peut pas aujourd'hui nga ñëw nga ne nit ñi yow li je crois que loolu. ñoom ñoo fi nekk en fait. et alors mais c'est comme ça ça peut changer mais ñoo fi nekk. non je crois que c'est le peuple c'est le peuple qui est souverain. le peuple a moom moo noonu peuple mooy dégg. le pouvoir n'est pas héréditaire peuple mooy décider ne yow la ñuy confier pouvoir. pour un mandat. mandat bi un mandat bi waaw d'accord. on n'a jamais dit que. mandat bi jeex en fait. on n'a jamais dit que jeex na mais mais am na loo xamante ne suñ ko gisee te jaaduwul dinañ ko dénoncer. tant que c'est ça amul problème. mais mais mais, mais c'est justement c'est ce qui se passe ba dara am ci xam nga yaa ngi naan ma on tire à balles réelles on tue des gens. Oui. c'est vrai am na mais, mais, mais c'est, c'est parti d'où fan la jógee. dara parce que attendez mais vous savez euh, parfois les gens oublient ce qui se passe. Mm-hmm. vous savez euh, amoon na par le passé des manifestations yi gën a graaw li quand Ablaye Wade vule euh, imposer le ticket présidentiel fii en 2011. Mm-hmm. manifestations fi amoon. est-ce que tey jii il y une manifestation boo xam dépassé na euh, euh, place de euh, non RTS amul ba tey mais manifestation yoo xam dépassé dañuy dem ba dépassé place l'Indépendance ba romb président ba dem ba assemblée nationale ça veut dire que ñoo gënoon a gën a virulent que ces manifestations d'aujourd'hui mais Ablaye Wade était un démocrate il savait reculer mm-hmm. mais aujourd'hui am na koo xam ne il n'accepte pas la contradiction moom tu dois aller avec lui soit moom da lay faagaagal et c'est cela et dem nañu ba finalement euh, lépp loo xamante ne xeet xeetoon na ak démocratie dafa commencé tumuranke si dëkk bi et c'est cela le danger et tey jii mun nga ne man am naa pouvoir parce que j'ai j'ai l'armée à mes côté je suis le chef suprême des des, des forces euh, dinaa def lu ma neex mais je crois que suba en tout cas il y aura des conséquences et chacun en tirera on n'a pas intérêt ce qui se passe aujourd'hui dans ce n'est rien d'autre que euh, le du ressort du pouvoir actuel lépp li fi xew ñoom la parce que suñ ko suñ bugg buggutoon li xew xam nañu qu'est-ce qu'il faut faire il peut bien encadrer des manifestations te lii du fay xam du fi am mais ñu ngi koy def parce que tout simplement ils jugent que parce que ils ont déjà peur mm-hmm. parce que xam nañu ils n'ont plus la majorité et que l'écrasante majorité tey jii de il leur le dos ils la majorité mais élection mooy baromètre dans le pays élection yi passé ñoom ils ont gagné législative muy xëy na am ngeen percée bu am solo je suis d'accord mais ñoom ñoo gagné. vous savez euh, am na loo xamante ne euh, nit euh, il faut juste savoir apprécier. Mhm. li fi xew ñëpp xam nañ ko et puis ñoom pour doo pourquoi nit ñi su ma newee man je sors pour manifester mhm. nga ne doo doo manifester aussi tous les jours de la semaine non mais Yewwi ak wàllu yéen bon pas wàllu Yewwi askan wi une deux ngeen dugal manifestation euh, vous avez réussi un meeting bu xam bu am solo la ñu permettre leen le lendemain encore ngeen bëgg koo dàbbali le Sénégal l'économie doit doit tourner aussi non kuy marche en quoi cela peut empêcher euh, celui qui va aller travailler man su ma bàyyee sama liggéey naan damay dem manifester c'est mon problème. oui mais di. jaar non non mais man sama. xam nañ tous que Yewwi Pastef c'est une force boo xam ne euh, macha allah donc fu mu jaar fu nekk mën na bloquer. situation ah donc d'accord nañu que ñoom am nañ doole. oui bien sûr loolu kay ils le reconnaissent. nangu nañ ko euh, ils le reconnaissent depuis très longtemps. Euh, et c'est ça et c'est ça qui fait peur. ils le savent. et c'est ça qui fait peur c'est ça dama lay wax daal est-ce que Sonko neewoon na man du ma dem tribunal par exemple pourtant il y a deux jours bi muy dem meeting nee na. que tout le monde on se retrouve au tribunal. ça veut dire que non non maa ngi ñëw non non non maa ngi ñëw. maa ngi ñëw mais mais ki dem ba ne on se retrouve au tribunal ça veut dire que moom dafa fas yéene dem. parce que je peux pas te convoquer ma ne la kaay ñuy dajee fële. ba pare man du ma fa dem. donc à quoi bon d'aller encercler déjà l'encercler dans ce cas tout le quartier à prendre. l'état xam nga nu muy fonctionner. quelqu'un qui appelle ses militaires qui se compte pas. est-ce que on est-ce qu'on avait encadré Mame Mbaye est-ce que on est allé chercher Mame Mbaye n'a appelé personne. Ousmane Sonko il a demandé à ses non, centaines non, de milliers non, de militants de l'accompagner. Non, ah, non, non, il n'a pas dit venez ma... Non, non, non, on se retrouve au tribunal. benn la rek. non non du benn. xañuñu fa on le sait. quelqu'un sort pour aller au tribunal nga ñëw jàpp ko nga nekk non non doo doo du sa oto ngay nekk fan la am. non c'était juste pour l'amener rapidement mu gaaw. rien de plus parce que aussi euh, boo seetloo euh, ce que je veux dire mooy mooy. est-ce que il était tenu même mu nekk pro euh, mu nekk fa on oh, est dans une. li laay wax sànq li laay wax sànq depuis sànq. ça veut dire que on est plus dans une démocratie. même tu, le citoyen il a même la latitude même s'il veut il ne ne pas y aller, donc man ne léegi léegi en quoi. mais il a appelé ses militants à venir Dakar dafa xat benn buntu la xam nañ ko quand quand tout le monde vient c'est c'est compliqué. mais on n'est pas allé non non mais on n'est pas allé mais le problème qui se pose est-ce qu'on est allé dire au, à la population ou aux, ne passez ne, ne pas au tribunal on est allé chercher quelqu'un qui devait s'y rendre évidemment vous savez euh, la peur on sait maintenant que des gens ont peur. Mm -hmm. Et ils n'ont pas peur parce que euh, Sénégal, ils, ils, ont compris une chose de toute façon, que le Sénégal est en train de leur échapper. Et qu'ils sont en train de perdre des privés. Parce que c'est ça, ñoom nous sommes en ci privilégié la moo tax dañuy génn di di def li ñuy def mais c'est très regrettable moi je moi je n'aurais jamais pensé mm-hmm. que le Sénégal bi ñu ñun bi ñu xamoon Euh, fii lay toll nii. sànq da nga wax lu am solo. par rapport ak par rapport ak.